ut seen bopp. c'est ça moo tax mooy li ma wax nag toujours mu commencé base ba gis nga. commencé waxtaanee mën di am base ba rek ti kaw. jëm lu ko mooy du sotti bu commencé ci kaw wut mhm. euh, yu ci am. yu ci am voilà lu solo nañ ko waxtaanee ci base bi euh, mu jëm ci kaw loolu mooy tax coalition bi man a avancer euh, El Hadj dañuy dem Mbour Sédéka Nianing bokk na ci gox yi nga xam ne ñu ngi bokk ci commune bu Malicounda ndekete amuñu sax commission bu nga xam ne ndaw yi mën nañ fa dem wala askan wi dem bindu ji looloo sabab waa mouvement jóg jot na yëkkati seen kàddu di ko ñaawlu di xam ne ne kon loolee du benn yoon te nag koñ sa joxoñ baaraam du kenn ku du sous-préfet bu Sindia ñu teew lu sa Ibra Diak yor seen kàddu. textion bu doon jub bu ñu def révision sur les listes électorales am ñaari commission day am bu ñu installé au nord am bu ñu installé fii à Nianing au sud pour mën a faciliter ñi bëgg a inscrire yenn déplacement ak yenn coono yi. bi nga xamee ne sax dem nañ comme 2019 ba mënuñu def ñaari commission dañu def une commission itinérante boo xam ne day def ñaari fan Malicounda par exemple ñëw def fii ñeniñ ñaari fan bu nekkee Malicounda waa ñeniñ toog xaar ko bu ñëwee fii di nga mën a génn sa kër wala au moins village yi gën a sori passe ay cent francs cent cinquante ñëw inscrire en moins d'une journée nga dem ñibbi loolu nag lañ gisul bii nii tey mu am benn commission ñu installé ko à Malicounda muy jafe-jafe bu metti El Hadj amul commission euh, loole euh, ban jàngat nga ci def. bon dina xaw compliqué ah. ci mm. wàllu histoire. Euh, parce que Malicounda Kër sa Faye la tudd. Kër Maysa Faye. moom waaw Malicounda Kër Maysa Faye moom la ñuy wax Malicounda wolof. moom mos di nekk base bi xam nga ay jamono commune Malicounda yaatootul sax léegi dañ ko wàññi parce que moom Saly ci la bokkoon dafa gënoon yaatu ay ñaliñ mm-hmm. pointe sareen waaw ñax ñaxal Saly Saly Saly gépp sali gépp dute mbambara yëpp ci la bokkoon mhm. léegi Saly commune boppam la Ousmane Gueye moo ko yor di def liggéey bu am solo euh, war na am ñaari commission si loolu mooy yoon mhm. waaw mais est-ce que loolu moo doon am ci wàllu histoire dese na maa leer lu muy gëstu la xam naa ne daal ma ni kon moo nekk base mais li ma leen waxoon au début ni gis nga boo bëggee xeex dëgg dëgg dëgg dëgg li mu jaral ki ngay xeexal mhm. daf la koy jaral en tant leader parce que diggante ñaling ak Kër Meesa Faye gënoon na jafe ci jamonoy démb te mag ñi dañu doon bind comme ni mu jaadoo boo nekkee jeune diggante ñaning à plus forte raison léegi am na yoon boo xam boo jógee Joal dootoo aw biir mbuur ci circulation bi da ngay dévier directement génne ci déviation bi cest à yaa ngi génne ji pratiquement Malicounda Kër Cheikh Béthio foofu ngay génne si. Mhm. donc amul diggante bi du la du la lekkal sax cinq minutes. loolu loolu daf la koy daf la koy jaral nga jël benn bis yamale ko ci pour am sa carte électeur pour mën a bokk